donc il faut à la place il faut daa doo tey dafa jub ànd ak yow nekk ci ginnaaw te dañoo wax émergence la ñu wax te yaakaar naa ne ku commencé émergence doomu boo leen mbokk yi fi teew. Cheikh wàcc micro ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm. di am mbégte mu nag ci teew fii ci njaxare bi xam ne. Serigne Cheikh bi moo ko wootee ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo na àndal ñëpp te barki dem ñu ñëw fekk si ñu ñu jàppale ci liggéey bi nga xam ne dañu nekk. di nuyu waa comité électoral daal ko gis muy sëñ moom ak mbooleem ñi maa leen ci daje bi leen nekkoon ñu si wax di leen aussi présenté ñi nga xam ne ñoom lañu àndal muy Serigne Abo Serigne Mor. ak mboolem ñi nga xam ne ñoo ngi ànd ñëpp ci teew fi ak maam ak mboolem jigéen ñi di am mbégte nag. ci teew fii ci Daaru Xudoos nga xam ne mooy dëkku Cheikh Mouhamadou Moustapha te bu ñu ne mooy kër Serigne Moustapha kon mooy kër Serigne Touba ndax kenn ku ne xam ne fii la si ñoom defoon ci bëcc waaye mooy kër Serigne Falilou ndax moom si Moussa gën nañ woon ñoom ñaar la suñu def na lépp di kër Serigne Falilou si Moussa lépp di kër Serigne Bassirou nga xam ne moo defal loxo كسير إلهي كسير دهر كسير خالد كسير سالم كسير فهيم كسير مصطفى كسير سالم ak mboolem njaboot Serigne Touba yëpp góor ak jigéen ak mboolem ñi nga xamante ne bii ñooy rakki Serigne Touba ak bokkam ak Mame Diarra mi magam ak mboolem Cheikh si ak talibé yi fii mooy seen kër ndax li ko gis amul woon rek kon tey bu ñu fi teewee mbégte nañ ci am waaye aussi xel mu dal ak yaakaar ci yokk nga xam démb bi ñu demee Serigne Ahmadou Mokhtar di ko siyaare ji def ko ñoo def dara kat dañuy ñëw siyaare la sàkku ndigal ci yow ñaan la sa autorisation ngir def benn yëngatu boo xamante ne bii ba nañ ko tàmm aw ñu dugg fii ci yow wax jam ñu wax dalal suñu xel ñaan nga dalal suñu xel loolu moo tax tey jii ñu taxaw fii di wax ak yéen kon suñu yaakaar dolli te kenn ku ne xam na ne li nga xam ne moom bëgg mooy ci fan la président Macky Sall le 24 février incha allah buñ ci àggee dès le premier tour foog naa loolu mooy li nga xam ne di ko defee noonu bala maa dikk rek ci waxtaan bi. dafa am ñaar yoo xam ne dama ko bëgg a dénk suñu mbokk ñu àndal muy mbooleem ñi nga xam ne ñooy jàpp nit ñi gis ngeen nii nga xam ne noonu laa ko bëgg a tawam dafay du am di xàccandoo di dóorandoo ñuy ñaan mbooleem comité électoral bi nga xam ne ñu ngi ci bi te daanaka yëpp itam nii la ñu def mu sudewu nekk benn équipe di liggéey dans l'unité yéenante jàmm xam ne kat ñoo bokk même objectif ñu ñaan loolu ñu gàcc suñu tànk tubéy saxal ko ndax loolu moo ñu may ndam le 24 février. di ñaan tamit suñu yi nga xam ne ñoom lañu bokkal yëngatu ne kii tey te lu mën nga am ganu sëriñ bi la ñun le président lay wàcc nañu ko dalal teeru teral ko may ko jàmm dafa bañ a dal ci kawam bañ ko wax lu ñaaw ndax suñu mbagg taalibe la te bu dee ñun moom suñu wayjur ñoo la ànd ndax lépp mu am seen Cheikh Mbacke ko may waxoon naa la ko jurul tiit ndax ku ma defal jàmm sañ njaboot bu ñu kon ñun nañu am fulu nekk ci li ñu war a nekk li ñu war a nekk mooy lan ki ñu àndal mu le président Macky Sall am na bilan bilan boo xam ne musta am ci réew mi kon nañu concentré ci objectif bi xam bilan bi di ko waxtaane di ko xamal nit ñi bu ko bu ñu defee bu ñu àggee ci élection yi ñu bëgg kon nañu concentré wu bañ a perdre de vue l'objectif bañ a disperser wu bañ a xuloo bañ a xeex wax ci suñu grand candidat wax ci ay qualité am wax ci ni mu leen mën ba ci taw moo di sori Cheikh ñu bari daal di ñëw moom daal ci ko léegi ak ñeneen ak ñeneen fenn fu ne jóge na ko nga xam ne day mel ne. opération bi ñu lancé mooy ak mooy faqat bu soobee yàlla nit ñaa ngi faq di ñëw bii damaa toog di recevoir ba 6 heures du matin nelawuma ndax nit di ñëw kenn ku nekk fenn fu ñu fay jóg opération faqat boobu nag bu soobee yàlla moo ñuy may ñu faxas lépp dès le premier tour bu soobee yàlla benn voyage de a xamal ni jaxaay ko dafa li ngeen indi juumu leen te bu soobee yàlla di ñu bu ngeen dikkee doon ko ci nga xam moo fi nekkoon fii daa ko gis moom yëriñ ko daan di loolu kon bu ngeen dikkee foofu daal moo xelal dara la yëriñ ko la yëriñ kon dikk ngeen ci bu soobee yàlla ko ci yar ko ci tekki en bi nga xam ne am ngeen ko ci gis-gis bi nga xam ne am ngeen ko ak ci communauté bi ngeen am ba nangu dëgg ndax nangu dëgg si yomb nit mën na juum ba ci mu gis dëgg waaye am kese dëgg wala moom rek dëgg yéen a loolu dal te loolu dafay am solo ci doomu aadama ne dalal nañ leen ñëw ngir tey waaye yéen ñu nekk a jeex yàlla boole nañ ci comité électoral xam ne kat kër gi seen kër yéen def ci yàlla seen bopp kon ñu ngi leen sant ñu ngi leen di gërëm di leen dal jàmm gën a xam ne suñu yaakaar am nañu ci yéen te yaakaar bi ñu am ci yéen yàlla yàlla yàlla yàlla bu gas di leen aussi nag sant yéen moor yàlla ñu àndal seen fan yéen lépp rek ci taxawaay bi tax ak organisation bi nga xam ne mettre ngeen en place ndax bu ngeen jëlee dëkk bi xaaj ko mag fukki xaaj mu am wala fukki benn am ay comité électoral yoo xam ne fenn fu nekk nit ñi ña nga ko di def proximité parce que élection yi ci kër yi wax ak nit ñi man su ma jógee fii danañ ànd dugg ci lu ma ñeent bu juróom benn kër xam fi nañu dugg seeti ay kilifa waxtaan ak ñoom ne mooy li nga nag mënut a am loolu nit ñi dañoo des ci base yi nga xam ne ci la ñu nekk ngir liggéey kon foog naa ne stratégiquement noonu nga xam ne noonu la noonu la ñuy noonu la ñu woo jàpp naa ne mooy yoon bi nga xamante ne bii mooy mooy yoon bi dëgg. et encore une fois vous avez le meilleur candidat y a un plan exceptionnel que personne n'a jamais vu au Sénégal et donc votre devoir c'est de le présenter war ko nit ñi xamal ko nit ñi leeral ko nit ñi bu ñu ko defee nii ñu bëgg danañu ko am ndax fii di Touba kat li mu fa def bari na trop nit ñi ñu ngi wax autoroute la Touba wax nañu léegi jour magal nga xam ne mais ñu bari xamuñu ne. def na ci assainissement Touba loo xam ne mën na cinquante milliards daaw li fi def ci ay tëli mën na dix kilomètres ñi ngi prévoir yeneen trente cinq kilomètres yoo xam ne ñu koy def ñi ngi prévoir ak également tëli trente bi ñi ngi prévoir tëli waat encore benn cent vingt bi ak yeneen ak yeneen hôpital bi quarante milliards dañ na wax tànn waaye fi mu ne ko fa dem xam ne hôpital bi liggéey na ko boo dee mën na faussé moom bâtiment L plus cinq donc centre d'avancement technique euh, sept milliards bu dul jeex dañuy maanaam kenn xamul lu mu toll kon nag loolu moom ñu ngi liggéey présenté leen ko bu ngeen ko defee ñun ñii li ñu bëgg danañ ko defal parce que aussi ñun Sëriñ Tuubaa moo leen te xam ne bu liggéey Sëriñ Tuubaa ak buy coow di jaxase ak di yàq rek loolu ñaar yooyu bokk te président li mu bëgg moo di li mu def mooy liggéey ànd ak yar ànd ak tegg bi kon dañ ko jàppale ci yow ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp encore une fois parce que